quatre millions akbar yéeni kaa yi dee mi dama ne la gis nga médicament yooyee waaw garab yi day ña ngi ci ay keesu jën yoo xam ne nañ koo congelé ca suuf laas yéeni kaa yi nee na ba day président Macky Sall daal di nay sàkku nag ca gouvernement ba ca boppam kon ñu daal di baral recrutement bi lee wutal nit ñi liggéey waaw le soleil yéeni kaa yi nee na xëy yu gone yooyee wutal liggéey di wàllum recrutement ba waaw dama ne la semaine bii ma ne looloo am day recrutement ba kay semaine bii lay commencé nag laa la wax yow ca jamono joojee nga xam ne ñoom Zahra Iyane Thiam waaw di lijjanti xëyu gone yi Times nee na waaye ICS day waaw daal dinañuy xot lu tolloo juróom-ñeent ci ay société yoo xam ne day boo sàgganee junni ak juróomi téeméer ci ay doomu aadama yu fay liggéey danañu ñàkk seenu liggéey la ilaha illallah ah maa la ko wax Alassane Diallo mii directeur u ICS day moo indi ay coppite te nañuy joxe nag autorisation yo wàllum exploitation carrière u silex googe commune bu Daaru Xudóos te waxtaanee ko benn yoon ak ñi nga xam ne kon ñoo fay liggéey di exploitant yi yéen kaa gi ne gis nga gi xam ni kon moo njaboote gaañooñee waaw ña ngay woo président Macky Sall de ngir mu daal di sobe lu tolloo junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw yoo xam ne boo sàgganee danañu ñàkk seenu liggéey la ilaha illallah Omar Faye leeral askan wi day ci évidence seen kaay waaw nee na scandale la musiba mbaa bokumba boo xam ni day ña xam ne ñoom ñoo fay exploité ñoom la ñuy sàkku ca ñoom ton bu ne ñuy fay ñaari téeméer di ko fay indien ne gis nga lii lépp lu njiig directeur général u ICS Alassane Diallo mooy njag laa la wax te moom Alassane Diallo moomee ba mu retraité kenn xamul kañ laa looloy dëgg de Serigne Modou Gueye UP ci 24 heures waaw nee na Macky ci boppam kon moo war a takk fitam wile daal di dàq paa nga xam ne ñoo nekk ci république bii retraité bu yàgg yàgg ca jamono joo xam ne nag maanaam réew maa ngay mitee fu ne mel ni màggat mu feebar foo laal day miti nag laa la wax Lansana Gagny moo tax mu jugee ca ONAS googee ca jamono jooje la Guy Marius Sagna ci libération yéen kay waaw ne gis nga coowal suuf si nga xam ne moo dox ci diggante Ndengeleer ak waa Sedima Guy Marius Sagna day nee waa Ndengeleer googee ak Babacar Ngom day dafa ñu dara ñoom ñaar ñëpp nguur gee leen tooñ aha waaw source aané en tout cas waa Jilaax day wax nañu de wax ju doy waar parce que Aliou Faye day porte-parole u askanu Jilaax googee waaw nee nañ at yi ñu génn ni lée Bassirou Diomaye Faye lu tolloo fanweeri ne Seydi Gassama samedi ji ñu génn ca Ndengaleer fukki junni la teg ci taabal ji wax nit ñi ne leen continuer leen di xas Babacar Ngom Sedima allahu akbar chef de village su Ndengaleer googee mais amul woon benn bañ waaye gis nga léegi defaral nañ ko prothèse dentaire te ñi ko ko defaral du kenn kulul yàqkat yi rek Guy Marius Sagna day waaw nee na Babacar Ngom Sedima mi de deful dara loo xam ne kon lu illégal la maanaam loo xam ne jaarul yoon moog waa Sedima ay victime lañ a tooñ Amadou Diagne président yi gi day wàllum découpage wala administratif waaw mais nekkul pour politiciens yi lée mais pour askan wi la looloy dëgg de Amadou Dia ngemu ca ndaxte nee te gis nga dakk-dakk gox goxaan yooyee la ko taxoon a jug day mooy ñi xam ne dañuy jiite mën a jege ñañ jiite exclusive yéene kaa ne gox goxaan yooyee day mais ñu baree bari ci askan wi dañ caa d'accord ah waaw parce que boo jaaree ca kër Njaay loo kële dem ba jam ñaajox romb jaxaay ñàkkuram nduxura askan wa ca mu ni mel nag laa la waaye am na ñenn ñoo xam ne day wane nañ seenuk mer na parce que daal nañ kon ay ca Mbambilor jaxaay direetu news de Macky Sall day waaw daal dinay tarasawaat na carte collectivité territoriale yi lée en tout cas ville moom suul nañu ko ñetti ville yu bees ñoo judd ci Dakar njaay jël jóob eh way samba te Macky Sall li ko yóobee lii du dara lu dul ragal a ñàkk capital la wax kese parce keroog ba Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñàkkee capital yii de Yoff commune Yoff ca la Guédiawaye Parcelles Assainies Grand Yoff Ngor Ouakam ak Almadies la ilaha la deuxième ville mooy ville Grand Dakar commune Grand Dakar ca la ne Biscuiterie Sicap Liberté Dieuppeul Derklé HLM ak Hann troisième ville ba day mooy ville de Colobane commune Gueule Tapée Dik Médina Plateau Sicap Mermoz ak Point E eh way Samba yéeni kaay Pape Jogoy fee bi ne yeneen ni ville yu mag yu nekk ci biir réew mi tamit day Macky Sall dana ko naka daga toonde teewul waa këram yi nekk ci Ndakaaru Ndiaye jël joom ña ngay rayante Le Quotidien yéene kaay ne Mbaye Ndiaye day daa dóor Amadou Ba fayu ma ne la xuloo baa nga Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye nee na Amadou Ba defal attention parce que gis nga naa feqi ñi ngi ci jege ñaale ñi ngi ci mbokk ci àndandoo yi defal attention ci ñi nga xam ni kon la ko ci ruq danaa waxaat file Amadou Ba waaw na Mbaye Ndiaye Mbaye doucement rek président daf maa wóolu def loo ma politique ay mer ak yooyee nag mënta ñàkk ci wàllum politique te Mbaye Ndiaye xam naa ni ku bëgg président nga waaye di nga ma may nag ma wuuteeg yow ci cofeel googee nga am ci président <laughs> problème yaa ngay démarrer de Amadou Ba ne ko Mbaye tu vas me permettre de te concurrencer auprès de Macky ñëf alerte yéene kaay ne Amadou Ba moom boo bëggee dégg dëgg waaw gëm na Macky ña ànd ak Mamadou Kassé ak ñi ànd ak Sidiki Kaba waaw dañ doon xeex xeex bu mitee miti nag laa la wax waaw waaw laas werante bi nga xam ne moo am ci mbay mi dox naag doxul dawaa si ndaas yekkalu mel ni xamee ministre Moussa Baldé waaye ministre Moussa Baldé tamit daal dina tontu de tontu sax sax ministre mbay mi la Moussa nee na Sénégal li mu am ci résultat ci campagne commercialisation gi la 2020 2021 mësu koo am nag laa la wax Moussa Baldé ne 143 jours kese direct news ne financement wu FMI day nasaraan yi jox nañ Sénégal lu tolloog ñetti téeméer a juróom fukk ci ay milliards accord bu bees la waaw Dakar Times ne Sénégal kay ginnaawam bandang bandang ndawi milliards waaye démocratie bi lu yàlla xam doy na termine yéene kaa ne moo taxee Barthélémy Dias day waaw daal dinay bind nag ab leetar benn attaqué bu nekk ca diwaanu Amérique la nga xam ne daal seen yéene mooy indi waat Ousmane Tounkara fii ci Sénégal mardi tali na attaqué ba ne ko Macky Sall suñu président ñin Sénégal li ko teree nelaw daal mooy troisième mandat rek looloo waral képp koo xam ne taxaw nga te àndoo nguuram gi lée Macky Sall ak waa këram dal sa day tëjee kaso taafantaloo ay mbirum yu kenn xamul ci noonee la tëjee Karim Wade mi lée ci noonee tamit la tuumaalee Ousmane Sonko viol te Ousmane Sonko candidat la élection présidentielle 2024 Barthélémy Dias te noonee tam la ñu jëlee Assane ca Amérique indi ko a Sall mi la kon bëgg a def Ousmane Tounkara te Ousmane Tounkara mi nekkul terroriste benn yoon laa la wax tribune yéene kaay ne coowal gi la day ak barit gol waaw waa forum civil bu Birahim Seck la ñuy sàkku daal mooy nasaraan boobee na daal di nag versé cent vingt milliards nguuru Sénégal gi loolooy dëgg réew mi quotidien ne xaalisu moto Jakarta ya quatre waaw Jakarta bu nekk day ñeenti junne ñaari téeméer nga am ñeme wuñ ko tribune yéene kaay ne dëgg la téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent vingt mille cinq cent soixante-quatre ku ne ñeenti junni ak ñaari téeméer yu tëgës lëf la yàlla dem naa ca lamb ja tribune sox ne Modou Lo ak Ama Baldé day léegi nag régularisé nañ ko lamb ja leer na Vox Populi ne Modou Lo ak Ama Baldé ko ke léegi le vingt cinq décembre la ñaf <laughs> xaalis bi ñu jox waa Jakarta Jakarta yi ñoom a jaaxal waaye bu leen ko kenn ñaawalee de ndax ñoom ak luñ tuutile tuutile tuutile tuutile tuutile tuutile tuutile ñoo tane askan wi ci xaalisu pétrole bi mais nag nañ jàpp ne suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal